dëkk Linjaan man maay magu défon bi le défon bi décédé ni hmm. magu kër gi yëpp hmm. waaw moom dafa mel ni euh, déom bi dafa am lu ci rax lan la mën nga ñu nettali waaw ñun ñi sax dee bi rax na mais ñun ñi au fait le fond du problème xamuñu ko parce que fekkeewuñu hmm. waaw benn kër lañ demoon soi-disant dañoo amoon invitation foofu foofu la histoire bi amee ñun bu muy samedi bi bu ñuy añ ba ñu ne moom ngoon gi day dem toggi escargot ci benn kër xaritam libanais jour boobu sax lañ dégg tur bi ça dix ans Victor lu tudd. waaye la mu nekk fii Ziguinchor. waaw mu nekk fii Ziguinchor la nekk avec ses trois gardiens. Hmm. école Patate moom fu mu nekk. mooy suñu kër gi nii rek tout droit. Linjaan fii waaw Linjaan fii waaw. Hmm. léegi ci lañ dem mu añee ba pare moom mu gontu dem ñu tëdd sieste ba ñu reer ñu tëdd gisuñu ko waaw le lendemain ñu woo nañu naar bi ak moom dafa dañoo am problème ñu dóor ko dañ ko sot dóor ko mm-hmm. waaw fee moom comme demuñu fa nag ne fee yooyu doo ko mën a nettali lu mm-hmm. dëgg mm-hmm. waaw léegi ci lañ ko indi fii ñu indi ko def premier soins yi ça ne marchait pas ñu yóbbu hôpital finalement mu décédé mais mais euh, balaa ngeen di dem hôpital ñoom dañ ko dóor mhm. def ko luñ ko def euh, ñu gis ni sonn na ñu andi leen ko waaw ñoom dafa sonn ñuy sonn ñoom lañ ko indi hmm. dañ ko sonn dafa sonn indi ko ñoom ko indi seen oto ñu fob ko dugul ko ci néegam doxul doxul waxul xoolul yéen tamit ngeen bàyyi leen noon ñu dem ñu ñaan ñoom ñu ñibbi waaw ah, bàyyi nañ leen ñu dem mais li ñu war a def après def nañ ko waaw def nañ ko parce que depuis démb ba tey ci démarche yooyu laa nekk teg nañ yëpp ci loxo yoon yoon def na yoonam ba finalement jàpp nañ leen. Hmm. waaw arrêté nañ leen. Hmm. waa ji moom yàgg nañu liggéey moom ak xale bu góor bi. non non yàgguñu liggéey yàgguñu liggéey te yàgguñoo xamante parce que man musuma gaaw dégg fu may fu naan Victor Victor avec tous ses fréquentations. Hmm. Victor moom temps yi waaw te benn xaritam moo ko booleeg moom mooy Obin fii la dëkk moo ko booleeg moom. Mhm. waa ji bi amee sax obin boobu la yónni pour mu ñëw wax ñi ni moom dafa am problème ak vie moom moo ñëw ba ci obin ne ko demal kër ga nga ne man dama am problème ak vie. fekk def na ko lu ko def. nañ ko moom ak gardien ñu gaañ ko yëpp waaw léegi mu ñëwee fii sama doom foto def kii yëpp pour preuve mhm. yooyu la ñu yóbbu commissariat avec toutes les preuves bon ñu jëli mu mel ni ci photo yi euh, gis naa ci photo yi mel ni dañ ko takk li ko te ko yooyu waaw hmm. takk takk moom ñoom nee nañ takkuñu dañ ko dóor rek hmm. waaw takk moom amuloon fi mu toogee noonu ci suuf noonu chaise anglaise bi boobu dañ ko doon jalandi dañ ko doon sang daal hmm. pour changer ko yére waaw dañ ko doon sang pour changer ko yére mais takk moom amu fa noonu la ak yéen famille waaw. Mhm. waaw ma ne noonu la demee daal. Mhm. Mhm. léegi yéen famille bi euh, jot ngeen euh, wax euh, police nga wax. teg nañu yëpp yoon ñu woo démb ci guddi laa dem ñu entendre ñu kii ma ma def déposition tey ci suba commissaire woo entendre moom ci boppam il a un mot au niveau de l'hôpital pour ñu mun ko génne fait fait dóor yi nu mu demee mhm. bon j'étais parti avec un policier léegi au retour aussi avec un policier mu ñu demee ñoom ci lañ def lu ñuy def ñu dem jëli leen. mbir yi kañ la xew. Euh, samedi nuit. Mhm. moom ñoom ci lu ñu wax nee nañu samedi nuit vers quatre heures du matin bër seen dimanche daal. Mhm. waaw bër la xew mais nous nous on a su nouvelle la nouvelle de dimanche matin. boobu fekk euh, mu ngi sonn. waaw boobu sa moom fekk sonn na hmm. mhm. léegi yéen a ko yóbbu hôpital seen bopp. waaw ñun on a waa ji ñun laaj ñu ko dërëm def lépp ñoo ñu def ñoo def lépp ba heure ma xay yooyu ñoo def yëpp. Hmm. Hmm. waa moom anamu. man tey laa ko gis may génn commissariat buntu commis commissariat bi moom mu ngi toog. waaw moom mu ngi toog di xaar. après moom jotu leen wax dara ci lu ñu jotee. commissariat bi ah, waaw moom boolewu ñu sax fu ñu fu ñu teg hmm. waaw ñoom dañ leen teg fu ñu leen teg teg leen fu ñu leen teg man ñu wax ak man ba pare ñu ne ma madame mun nga dem léegi reste à l'écoute danañ la woo. Hmm. ah néew bi. néew bi mu ngi hôpital régional. Hmm. hôpital régional lañ ko garder pour le moment léegi ñu ne comme dañuy def autopsie on peut rien pour l'enterrement pour le moment. Mm-hmm. moom seen rakk bi lan la doon liggéey. marchand ambulant nii rek la doon def waaw bu gisee ay affaire bu jaay yooyu la doon def daal. Mm-hmm. mais nekkuloon nit ku agressif. non non tàppet na may la da ngay wax ak moom ñaari wax sax day génn dem. Mm-hmm. ñaari wax day génn gis nga koñ bi yëpp tey loolu lañ doon jooy ki nga xamante ne. du wax ak nit boo doon waaye nag boo fi indi bu fi indi bu kaa nga jóg day sol ndàllam ndànk mu dem hmm. waaw nekkuloon ko agressif de loolu moom mosuñu ko xamee ci moom non loolu moom amul